chef de service yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci département bi sécurité sapeur pompier gendarmerie police ñu ngi remercier aussi tamit euh, surtout la presse ñoom ñëw nañu bu baax a baax a baax couvrir événement bi nga xam ne nekkatul événement national mais dafa nekk léegi événement mondiale international ci sama làmmiñ ak euh, làmmiñu xalifa bi njabootu Seydi Hadji Malick yëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi ndokkeel ñëpp waaye di ñaan yàlla itamit euh, ni ñu ko defee fii ci Tivaouane ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu ko continuer defee ko noonu ci liggéey bu rafet mu àgg Thiès jóge fa dem ba national ñu ngi sant bu baax euh, Koskas ndax bu buñ dee wax gàmmu Tivaouane Koskas moo tax parce que ñoom ñoo koy organiser te it ñoom ñooy trait d'union entre euh, ñoom ak Kër Seydi Hadji Malick COSCAS mooy trait d'union moom ak xalifa bi COSCAS mooy trait d'union moom ak umma bi mën nañu wax sax euh, njabootu diine yëpp ndax COSCAS ñoom ñooy organiser gàmmu gi kon yi nga xam ne ñoom lañu fi relever muy ay imperfection maanaam muy ay matadi ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla def dëppoo ak juboo ci suñu diggante diggante organisateurs yi ak diggante service d'ordre yi ba nga xam ne yiñ fi évoqué yépp ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla na daje am ci benn taabal ñun ñëpp yooyu yëpp ñu mën koo waxtaanee ci suñu biir ndax euh, organiser ak defar rek mu baax moom moo ñu tax a jóg kon ci làmmiñu xalifa bi daal mu ngi sant ñëpp mu ngi ziyaar ñëpp mu ngi ndokkeel ñëpp. di ñaan yàlla nag yàlla bu mu su ñu mujj daje nii ñu ko duggee ci bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla dimbalee ba ñu àggaleeg alhamdulilahi rabbil alamin te itamit suñu xalifa bi tamit yàlla dolli ko wér yàlla dolli ko sutura yàlla yàggal ko ci suñu kanam moom ak ay rakkam moom ak porte parole am moom ak njabootu Seydi Hadji Malick bu ñu waxee nag njabootu Seydi Hadji Malick nag képp ku dëkk Tiwaawan rek ci njabootu Seydi Hadji Malick nga bokk yàlla na ñu def fatiha gannaaw istixfaar ñetti yoon jàng salaatul fatiha wala salaatu ala nabi def euh, ayatul kursi yu lixlaas falex ak naasi tëjee waat ko salaatu ala nabi wala salaatul fatiha ñaan yàlla yàlla na yàlla doolu ñu sutura bi jaar rasul sallallahu alayhi wa